dañuy àndal ci xabaar yi ci wolof ci gàttal asalaamaaleykum El Hadj. waaleykum asalaam sëñ Fall maa ngi lay ziar di ziar ñëpp ñu ànd ak di leen ñaanal jàmm di sàkku ñaan ci ñëpp yëkkati ñeel ña sàncee ci anam yu dëppwul ak yoon ci biir marché Ocass euh, xalifa général des bay Fall daal dina euh, joxe ndigal ngir kon ñu def yëkkati gi. Euh, lekk ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru février dànkaafu la kon jëm ci ñi nga xamante ni ñoo daal di sàncee. fa euh, fatt yoon ya wutali ca biir marché ba euh, mu ngi ko xam ne nag ci ndigalal ku tedd ki Serigne Mountakha Bassirou Mbacké euh, jëfandikoo gi ak maintenance ñeel TER bu Sénégal ay leeral tukkee ci chemin de fer ba ca France gis ne contrat la bu nu signé 17 janvier diggante SENTER ak SETER Sénégal daal di dugg ci capital bu SETER présidentielle 2024 ci wàllu woowee am na ay yeesal yu ñu ci amal ñeel liste ak aji wote yi. Euh, loolu nag di kon révision ordinaire bi nga xamante ni waroon na demare benn fan ci weeru février euh, xibaar la tukkee ci ministère intérieur ci technique bi Abdoulaye Diop. laam-laamee woon ci wàllu yëkkateem déet ñeel ñu sancee ci anam yu euh, safaanoo ci biir marché bu ukaas euh, léegi leer na ni daañ leen fa yëkkatee xalifa euh, Baye Fall daal dina dakkal kon naatable ak laam-laame gi xam le ni ca marché ukaas ci Touba Mbàkke ginnaaw lakk ga ak it jafe-jafe yi nga xamante ni amoon nañ ko ngir jotee ci yenn bërëb yi ngir fay lakk googee léegi dogal bi mooy képp koo xamante ni fa nga sancee du fa war nga daal di waajal say mbir takk bagage yi laata ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru février mu ngi ko nag moom ku tedd ki ci ndigalal xalif général kullu murit Serigne Mountakha Bassirou Mbacké dañu ciy déglu sax porte parole lu xalif de Baye Fall Serigne Dame Sode Fall ñu teewlu ko ak Pape Mbaye Diaw. Cheikh Amadou Mountakha jàppal na ko bis ajjuma ji nga xam ne moom la ñu jëm bu dellusee ba dellusiwaat maanaam bu nu màggalee màggalu Kazu Rajab ba bis bi dellu si fas na yéene ànd ak mboolem njabatug Cheikh Fall ak képp ku nangu ndigal ñu ànd jëfe ndigal loolu yi nga xam ne mooy nu leeral bërëb yooyu yi nga xam ne moom la ñu tudd léegi muy jëmmi marché bi mbedd mi nga xam ne moo jógee vingt-huit dem ba traversé marché bi ba jàll ak mbedd yi nga xam ne yépp nag ay mbedd yu yu yu si soqikoo la yi jëm gànnaar ak Saalum mbedd mu si nekk rek lu fa nekk te bukk sa loolee dees koy dindi bu fekkee ni ña ko fa def dindi wuñ ko laata mbooloo mi di agsi kon sëriñ bi dafa bëgg ku am foofa bërëb wala nga am fa loo xam ne ay bagaas la yoo xam ne buggoo mu yàqu euh, sëriñ baa ngi sàkku bala nu faa egsi ñu jëfe ndigalu Cheikh Modou xaa kenn ku ne la nga fa am nga dind ko ku tege si kaw yoon wi xam nga ni yaa ngi si yoon wi ku jël lu ëpp ci li nga war a jël xam nga ni jël nga lu ëpp ku karole wala nga def trottoir ba mu jéggi ba mu àgg sa tëli ba xam nga ne jël nga loo moomut bu nu egsee parce que yéene jëfe ndigalu Cheikh Modou Mountakha Xaali muy leeral mbedd mi ba mu leer nañ ñi leeral mbedd yi nga xam ne ñoo féete Saalum ak ak gànnaar muy muy muy voie latérale yi ñoom des na ko leeral ba nga xam ne marché bi daal egsi fi dina doon lu jàppandi ci wet goo jóge marché beneen marché joor fii ci Parcelles Assainies Ndakaaru moom ayu bés ginnaaw bu nu fa yëkkatee commerçant yi ñu duppee tablier ba tey jii seen mer gi fagul gis ne fa leen bi bu Parcelles Assainies sancalaat euh, du fa baax euh, moo waral seen ak euh, gis-gis ne daal maire bi Njaay Doole la dugal ci mbir yi danu ci déglu reportage ndongo kaa tablier yu marché Dior bu Parcelles Assainies mel ni nag seen mer gi fagul ba léegi ñoom yi la commerçant ni maire bi nag daf leen a jaay doole benn ci ay bés gannaaw nag bañ leen yëkkatee ci seen place yi ñu doon lal isa maykab lañ may wax fu mille personnes di dàqee seen wërsëg nga ñëw yëkkati leen fa complètement terewul bés bu yàlla sàkk nag ñu ngi xëy di ñëw ci marché joor donte ni seen liggéey fi mu tool nii dafa daal dee taxaw amul fi ñu teg suñu bagage fii dong lañ am foo xam ne ne yaakaar ne bu ñu tegee suñu bagage suñu client danañ ñëw doon jaaxle goo xamante ni daal dinay fës ci xar kanamu yi la amul fenn foo xamante ni mënees na faa taxaw nag ak seeni client ngir mën a jaay lii lépp nag du kenn ku dul maire bi nga xamante ni li mu bëgg a def mënoon naa xool beneen ku yoon bu uuteeg bi mu daal dee jël meer bi respecté wuñu man dama jàpp na période bi du période dundaloo ay sénégalais ni yow lu métti gannaaw bi ñu leen dëgër piire taxul tamit maire bi di leen bàyyi xel ndax ay agent de sécurité yu nekk ci L200 ñooy wër di surveiller nag yile commerçant waa police tamit di def lu nu mel ndax saa su ne seen oto bi du jug ci jaabante ci li wër peggu marché Dior. te gis nga oto baa ngi noonu di romb oto police tamit moo ngi nekk ñooñu teer lal. ñoom yi la ni bañ ñu nag ku leen yëkkati waaye site bi nga xamante moom la leen maire bi proposé ngir seen recasement la ñu d'accordul. Mokhtar Dramé boobu moom d'accordaguñu mi ngi ci marché église ci ginnaaw noonu mooy terrain boobu dafa xat parce am na nang ngir ñu daal di koy nangu ñu ne nag yëf yi abus de bu maire bi kese la bu leen nar a tàbbal nag ci jaaxle jaare fa yàq seeni ku liggéey. jërëjëf euh, Ndongo Ka RFM juróom-ñetti waxtu pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. tabaski mille 2023 ñu ngi ci waajal gi doon ca amal sax ndaje démb euh, bilan d'abord euh, natt ak xëyma euh, tabaski daaw gi ak it waajalu gu déwén gi wala gu ren gi ngeen baal ma 2023 ci fànn woowee la jëwriñ ju nu dénk càmm gi xam le ni Sénégal lan muy soxla incha allah bu boobaa ci xar mu ngi toll ci juróom-ñetti téeméeri junni yu tegal fukk ci ay xar ministre élevage sàkku nag ci ñi nga xamante ni ne ay sàmm ak opérateur dañoo demoon lebi koppari këru koppar yenn yi di institution financière ñu wàccoo ak seen bor yooyee dañu ko déglu monsieur le ministre Aly Saleh Diop ak Abdou Diouf Diagne. dañu woo acteurs yi. ñu wax ñu parce que malgré objectif yooyu. du ñàkk ay jafe-jafe ñoom ñu biral seeni jafe-jafe seeni jafe-jafe yooyu nag ñoom lañ bëgg nangu tey boole ko ci ñun li nga xam nañ préparer nañ ko muy plan d'action ñu waxtaane ko muy jëmukaay wi nga xam ne palang bi nga xam ne tëgg nañ ko pour mu ñon ñoo yóbbu ci tabaski 2023 bu mucc ay loolu mooy sababu ndaje bi tey waaw wax naa sànq ne FONSTAB ci boppam directement ci guichet bi wala bu ko jaaree guichet euh, banque agricole wala yeneen banque yi xaalisam rek financé nañ ci lu ëpp un milliard ak lu topp boo jëlee benn 2 ci boppam financé na lu ëpp un milliard ak lu topp boo jëlee yeneen mutuelle yi fi nekk également def nañ xaalis bu bari ci tabaski kenn ku nekk ci ñun gis na ne tabaski jaar na yoon neuf cent mille xar ñëwoon na ci marché bi daanaka ba ñu tabaskee bu ci ëllëg li fa des ay dix-neuf mille la li muy tekki mooy jaay nañ xar yi ah boo lebee nag pour jënd xar boo jaayee li ñuy séentu ci mooy nga dem rembourser waaye foofu la difficulté bi nekkee donc ñun amuñu problème pour financer acteurs yi waaye li ñuy séentu également acteurs yi bu ñu leen joxee financement ba pare bu ñu jaayee ba pare li gën mooy ñu ñëw delloo si bor bi pour que ñu mën a renouveler en tout cas activité Ali Sallé Diop jëwriñ ji ñu dénk càmm gi kan moom moom TER bi di train express régional bi ci Ndakaaru loole mooy laaj bi jip boobaak léegi ginnaaw euh, am xët moo xamante ni jàng nañ ko ci yéeni kaay France bi di Figaro euh, ñi di waa société nationale semaine de fer bu ca France nag ñoom euh, leeral ni ci wàllu exploité geek maintenance ñoo ko yor jaare ci seen bànqaas bi di SETER ci communiqué lan ko indee yooyu leeral ñu ànd ceeg Mamadou Oumar Ba état bu Sénégal dafa xaatim ay kayit yu leer jël maintenance bu TER bi dénk ko SETER di filiale bu SNCF di société bi yor mbiru train ca France ci diiru ñetti at SNCF génne ab communiqué di ko leeral xam le ni sax TER bi moom seen TER moo ko moom di société bu Sénégal seen TER ak SETER di rafetlu seen ànd bi ñu tàmbali depuis 2018 TER bi tàmbali daw depuis 17 janvier 2022 yàpp ci diiru at luy tollook fukk ak juróom-ñaari millions ci ay voyageurs buñ sukkandikoo ci communiqué bi SNCF di sax sargal CNTR mi nga xam ni dugg na ci capitalu CTR ci fanweer ak ñeent ci téeméer boo jël coow li juddu woon gannaaw bi journal français bii di Le Figaro fësal ab article di wax ne TER bi moomeelu France la porte-parole bu gouvernement bu Sénégal indi ci ay leeral ne société nationale CNTR moo moom TER bi te lépp lu ci tukkee ci ay recette ci gafaka réew bu Sénégal lay dugg ne nag coow li coow li du dara lu dul dañoo bëgg état bu Sénégal tim jagleel ko société française bii di SETER contrat bi nga xam ni ci ñetti at képp la yem. jërëjëf ci leeral kon bi moom moomeelu Sénégal la ONAC ci Kédougou moom téeméer ak juróom-benn ci ay million la daal di amoon ci gafagaam ci édition bu njëkk ba ONAC fàttali ni mooy office national bi ñu fi taxawal ngir recouvrer lépp luy avoir criminel euh, ñaareelu édition bi dem nañu ci gafage gi ba ñeenti téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñetti millions leeral li. Ibrahima Diabaxate. bii mooy ñaareelu vente aux enchères bi office national de recouvrement des avoirs criminels amal bi ñu ko sampee ci mois de juillet ci atum deux mille vingt et un ba léegi. su fekkente ne alal bu bëri bu muy jaay mu ngi bàyyeekoo ci ay confiscation yi juridiction yi prononcé waaye am na tamit yeneen ci alal yi ñu teg loxo ci ay jura clandestin yu bëri yi tas ci biir département bu Saraya Mor Ndiaye mooy njiit bu ONRAC. li ñuy jaay tey. Euh, bari na. Euh, mën nañ ci wax lu mel ni ay caterpillar. mu to wala mu nekk ay moto pompe wala mu nekk ay groupe électrogène te ñooñu nga xam ne alal jooju xam ne dañ ko nangoo daanaka lépp ci nga xam ne ñoom dañuy ñëw di def defu ñaaw téef lu mel ni dem di exploiter or wala exploiter suuf si amuñu ci benn autorisation bi xeetu jënd ak jaay donte sax dina yokk xaalis ci biir kees état bi waaye dina gën a feexal brigade de gendarmerie yi ñu transformé en magasin madame Mariama Traoré mooy gouverneur région bu Kédougou. Eh, day contribuer tamit si budget bu état. dugal euh, xaalis si gafa euh, état bi. mais également permettre euh, commissariat yi ak brigade de gendarmerie. bien yooyu stationné woon foofu ba yenn saa day yàqu ba nekk ay effar da leen di encombrer tamit di leen gêner. ñu désengorger yi li ñu mën a fàttali rek ci vente aux enchères bi mu njëkk amal ONRAC jot na jaay li tolloo ci téeméer ak juróom-benn million waaye bi mu amal fii ci Kédougou ñeenti téeméer ak juróom fukk ak million lañ jot a encaissé ci benn fan. Ibrahima Diaba Khaté Kédougou RFM. jërëjëf Ibrahima dañuy waxtaanee wàllu wér yaram ak syndicat bi nga xamante ni euh, fa la euh, cosaanoo waa SYTSAS ñoom dogal bi nga xamante ne jël nañ ko mooy génn ci mbootaay gi nu bokkoon di UNSAS danoo gis ne daal taxaw ga ci war une UNSAS di seen mbootaay googee euh, defu ko jëmee ci ñoom boobaak léegi donte ñu ngi ci xeex bi ay euh, ati at ak dëcc yëngu moo waral kon danoo fas yéene des affiliés loole une UNSAS ñoom ginnaaw bi ñu ko rëccoo ne doxali ne jotagul nag kayit wuy wane seen génn googee Oumar Mbow clash baa ngi woy diggante SUTSAS ak UNSAS ñaari organisation syndicale santé yooyu daanaka jubootuñu ci dara Ousmane Mbaye secrétaire général de l'union régionale SUTSAS Ziguinchor di xamle li ko waral. bu ñu jëlee 2017 ba tey jii. Ah, xeex yi ñu engagé bari na amul benn yoon bu nga xam ne gis nañu UNSAS mu taxawuñu waxuma la sax mu taxawuñu mais mënuñu jërë ngeen jëf waaw leen góor dégguñu ko ci seen wàll. tey jii ñu ngi ci di plans d'action te deful ndànk dinañu àgg onze plan d'action mais gisuñu fen si euh, INSAF alors suñu comité exécutif national bi mu dajool nag def na constat yooyu yëpp dal di wul fekkente ni da nga fekki ab kuréel da nga ciy wut njariñ moom it muy wut njariñ ci yow bu fekkente ni moom mu ngi am njariñ ci yow te yow amoo moom ci moom njariñ njariñ la kon des na dafa féete boor décision bi ñuy mën a jël mooy wax ni benn bi na engagé benn lettre de désaffiliation yónnee ko INSAS wax ko ni ko bokkatunu INSAS benn ñaar ña nga xam ne ñëpp ñun ñoo leen yónnee woon ñu nekk suñuy ndaw am ay ndomboy tànk ci biir INSAS ñaan nañ leen sant nañ leen ñu tekki ndombay tànk yooyu dellu si ñun ñu xool ñan la ñu mën a àndal ba xàll yeneen yoon yi nga xam ni liggéeykat yi dinañu mën a gis seen bopp ci xeex yi xeex. jeex na kon syndicat unique des travailleurs de la santé et de l' sociale génn na ci une UNSAS waaye bu ñu sukkandikoo ci chef département négociation collective dialogue bu union nationale de syndicats autonomes bu Sénégal bile kuréel ba léegi jotagul notification buy wane ne SUTSAS génn na ci UNSAS Papa Birama Diallo. xaj na peut intention la ñu wax waaye décision pour désaffilier syndicat de base ci centrale syndicale ñun ñu ko xamee mooy congrès mooy désir boo demee ci boo demee ci statut syndicat ba di nga gis ni c'est le congrès seul congrès habilité moo am am moo am prérogative moom moo am pouvoir pour désaffilier organisation syndicale waaye instance rek seen ak yooyu xaj ne intention la lu ñu junj la rek xaj na peut-être bu ñu àggee ci con congrès congrès confirmé wala mu infirmé xaj na ci diggante bi waxtaan dina am peut-être xaj na jubóo dina am yaakaar naa ni intention la ñu wax waaye waxuñu décision ba léegi daal kenn binduñu yëgal ñu loolu te kenn woowuñu sax ci kilifa yi ñoom kilifa syndicat bi woo ñu pour yëgal ñu loolu ko presque daal lañ koy lañ ko dégg ñu yaakaar ni nag xaj na peut-être loolu. Ousmane Baye secrétaire général de l'union régionale Sud-Sas Ziguinchor daal dina xamle ne dinañ jox ab not buy wane ne génn nañ ba seet wecc ca union nationale des syndicats autonomes bu Sénégal. jërëjëf Omar leneen ci xibaar ak RFM communiqué bu tukkee ci ministère intérieur xam leen ni ci lu yàggatul daanu amal ak yeesal ñeel liste wote yi jëm ci élection présidentielle euh, par ak njiitu réew 2024 euh, mu war a kon wutu euh, li nga xamante ni mooy révision ordinaire bi waroon na tàmbali benn fan ci weeru février ci lu yàggatul ba tey ci communiqué ministère intérieur ab décret di dogalu njiitu réew mi dina daal di génn buy taxawal anam yi nuy organiser yooyu yeesal ñeel liste électorale rurales yi ginnaaw si nag dinañ amal ab campagne ci wàllu jokkoo communication ba mu leer ci bopp yépp ñeel boobu présidentielle 2024 Grand Yoff imam jumaay quartier Daaru Rahman 2 ci xibaar la ñu xamul fu mu ne euh, boobaak léegi altine daal ginnaaw jullik tàkkusaan gi la amatul benn xibaar ci moom euh, Thierno Tidiane Tall ay euh, jegeñaaleem njaboot gi jaaxle ca lool waral sax ñu daal di wasaare séddoo xibaar bi ci internet gi démb ak léegi RFM juróom-ñetti waxtu tegal fukki minutes ak juróom. tàggat yaram Youssouf Bodian maa ngi lay nuyu Youssouf. di la fay xaja san Sénégal ci finalu CHAN 2022. guleet kon muy am équipe bu Sénégal démb daal di qualifié ci euh, final bi ginnaaw bi mu daane Madagascar benn bal ci dara euh, pap euh, Amadou Diallo moo dugal biu Sénégal quatrième minute ñu ànd ci kon ak suñu ndaw bu ñu yebal foofule ca Algérie di Sora Thiam. Sénégal daal dinay daan Madagascar benn bal ci dara mu di ab but boo xamante ni nag dafa teeloon a dugg ci ñeenteelu simili bi ci la ki nga xam ni moo di Papa Mamadou Diallo daal di lakk caaxu malgache loolee tax Sénégal daal di qualifié final gile mu nekk nag qualification bu historique kay tàggat gaynde loko yu Sénégal nag di delloo njukkal football locale bi ak ña nga xamante ni ñoo ko ŋànk Pape Bouna Thiaw. dañ siy sant yàlla tamit ba pare tey boo gisee xale yi xar kanam bu ñu wone dafa dafa am solo seetaan benn équipe bu ñuy wax mooy meilleure attaque bu championnat bi ñu ñëw yegg si presque dóorul sa góol jàpp mooy wane ni vraiment liggéey nan pour Madagascar bu mun a am dara tout n'a pas été parfait parce que tey boo xoolee mënoon nañ dugal ay but yu bëri mais yooyu yëpp tamit euh, dañ si liggéey pour jéem a travailler équilibre boobu trouver le juste milieu boobu koroog bu ñuy daje si final bi ñu am si réussite incha allah faut Joseph Koto qui était vraiment euh, mentor aujourd'hui, même si j'ai un mentor vivant qui est donc, le meilleur coach euh, d'Afrique, qui est Aliou. Mais notre football local, je pense, mérite plus de respect, surtout de la part de nous au Sénégal. Tous les grands championnats, nous avons joué, nous avons ñëpp naan ñu ñooy 23e mais tey jii mais te ñu ngi xëccoo ji pour dem dooni ji pee incha allah. natangoom bu Madagascar bi moom la mu xamle kàttanam ba gàddu ñetteelu place bi Ramwal Rokatandrab. L'autre, j'aime bien notre deuxième mi mais on n'arrive pas concrétiser les occasions. Vu niveau de match, c'est de haut niveau. Donc, euh, c'est le football. on est perdu mais euh, on va essayer kon ci noonee Sénégal fas yéene jàkkaarloo ci final gile Algérie ñoom ñaari équipe yëpp nag di doog a àgg ci final loolu sax nara doon na final ga ñu nemmeeku woon ca CAN 2019 ca Égypte mu ne woon Soda Thiam fii ci Alger ngir radio Futur Media. Soda Thiam Lamine Camara moom lañu jàpp ni moo gën a ràññeeku ci euh, match bi bi mooy ñaareelu yoon kon. muy gagné raaya bi ni moom milieu terrain bu gaynde yu Sénégal ak Génération Foot moo nekkoon ob du match euh, suñu diggante ak Côte d'Ivoire gaynde yu Sénégal kon ci match bi amal taxawaay bu baax ndax ñoo dominé équipe bu euh, Madagascar waaye euh, li xaw a ñuul ci sow mi mooy occasion yu bëri ñu am daal di ko raté ñu déglu ci jàngat suñu kon consultant Mounir Issa Sonko ci micro Pape Malick Diaw waaw daanaka ñëpp dayoo tiitoon si Madagascar parce que Madagascar dafa euh, juróom-ñetti but ba pare encaissé kese benn but donc yoon la mu ñëwee demi-finale ñëpp di ko bàyyi xel parce que si quart final dafa doo 3-0 diggante moom Mozambique mais match bi tey bu ñu ne dafa xaw a yomb dama naan jour la ak Pape Thiaw jour la ak Pape Thiaw la ñu gën fu ñu commencé dox seen ñu leen fu ñu ñu leen fu ñu xalaatee bàyyi bu ñu leen fu ñu posé seen si lañ dugalee bii bi après nag li si des mooy Sénégal daanaka dafa maîtriser match parce que dafa amoon ay problème diggante militaire ak attaque am pour ay attaquant am bu xasee ba am nag défense bi day mun ba pressé suñu attaquant yi tamit di leen pressé maanaam bàyyi ñu seen défenseurs yi ñu mun a génne bal bi comme ni ko duy buggee comme ni ko comme ni ko daa bu ñu amee lu di félicité kon équipe bu Sénégal yi dajee kon ci final bi samedi ak Algérie ñoom démb dañoo daan daan bu métti sax Niger juróomi bal ci dara ay men Mayus moo dugal ñaari but ci match boobu ñeenteelu bi kon bu attaquant bu USM Alger final bi kon samedi 19h30 Sénégal Algérie ñaari sélection yi jot nañoo daje mois de décembre bi passé ci match xarito ca Annaba ñu def deux bi partout ku nekk dugal sa morom ñaari but kii di musa Kanté ak Malick mbay ñoo dugaloon booba but yu Sénégal kon ajuma match troisième place bi 19h. Euh, Niger euh, Madagascar euh, lay doon. ñu dem ci tugal ak marché transfert du jour yi nga xam ne jeex tëj nañ ko dem ak Pathé Ismaïla Ciss mi jegewoon lool dem ca Olympique Lyonnais waaye fii mujjul antu Cancelo moom nag dem na fekki Sadio Mané Cancelo fekk na ko ca Bayern Munich Vitinha dem ca Olympique Marseille Arsenal moom it daal di signé kii di ñëw ñoo ngi ci ak leeral kii di Mamadou Omar Ba. Bamba Dieng ca Lorient ak Pape Gueye ma ca Séville loolu moom leer na waaye Pathé moom day wéy di desandi ca Rayo Vallecano moo ne de transferam ca Lyon daanaka as tuut képp moo ci desoon mu antu dem nañ sax ba jàpp njëg li d'accord ci mu tolloon ci juróom benn million ci xaalisu euro waaye kayit yu tardé moo tax antuwul waral ba Pathé Ciss mer ba futt ne càggante képp la te kilifa yu Rayo Vallecano ñoo ko sooxe lu mel noonu moo dal itam Hakim Ziyech marocain bi PSG mujj na takk suuf ndax mbir yi ca këlëbam Chelsea la tardé waaye PSG ablé na Keylor Navas Nottingham Forest Milan Skriniar défenseur bu Inter Milan juin la fay ñëw transfert libre jamono ji nga xam ni Olympique de Marseille signé na Vitinha jóge PSG Marcel Sabitzer jóge Bayern dem Manchester United ci prêt Manchester City itam al Bayern Munich Joao Cancelo Chelsea moom mujj na recruter Enzo Fernandez gannaaw négociation yu yàgg mu signé ba Jorginho jóge Chelsea dem Arsenal signé moom ba juin 2024 Barcelone transféré Hector Bellerin ca Sporting ba ca Portugal. Mamadou Oumar Ba donte nduruwul football kat <laughs> Youssouf ñu waxtaanee basket bi ak deuxième journée championnat bi ñu clôturé démb. ñaari match moo amoon ci góor ñi AS Ville de Dakar daal di daan Port 93 59 waa Mermoz ñoo daan Asfa 73 à 59 nañ ko wéyal kon ak ñetteelu bëccëg bi ci week-end bi ñu jam maa ngi gërëm Youssouf ñu dalal Anna Rocha ci chronique culture bi. maa ngi leen di nuyu mbokk yi. centre culturel bu Diourbel dina dalal ñeenti fan ci weeru euh, février euh, finale régionale concours bi ñu dippee Bawol street sif juróom-benni euh, ndaw rappeur ñoom ñooy bokk ci ñetteeli édition bile kuy gagné concours bi nag dinañ ko accompagner ngir mu taxawal benn production boo xamante ne dina am juróomi titre def ko ab clip vidéo waaye itam benn trophée dañ ci déglu. wàllu Modou euh, Sylla di ki taxawal boobu boobulee concours mu ci profito ngir nag lancer appel ci euh, kilifa yi foofee ca euh, Diourbel ngir ñu gën mën a am accompagnement. bi moom moo nekk suñ ñetteel bi yoon depuis ñu ngi koy teg Covid bi moo taxoon tegu mu am ñu am ay années yoo xam ne perte ko donc tànnoon nañ fukki artistes ak juróom ay rappeurs donc ñuy def ci des pour six yi dem final six yi nag trois prix ki jël raw gàddu gi dina am benn production bu ko defal boo xam ne ab EP lay doon bu doon juróomi titre juróomi son dina am clip vidéo dina am ay photo ak benn trophée bu muy am final bi nag euh, mu ngi doon le 4 février euh, fële ca théâtre de verdure bu Diourbel dina am spectacle son et lumière et dina am ay surprise yu bëree bëree bëri comme ni ñu ko defee chaque année te incha allah année yi jàll yëpp dañoo feesal théâtre de bu Diourbel te année bi mooy raw parce que yu Bambey ñu ngi ci donc compétition bi nag pour raison bi yëpp la muy Bambey muy Mbàkke muy Diourbel gii nii mais ren am na ñaari finalistes yoo xamante ne ñoom ñu ngi xamante ne lu am solo ci ci ab dëkk rawatina dëkk bi ñu nekk muy muy Diourbel mais mësuñu am ah, ndimbal bu jugee ci mairie bi que ça soit financièrement ñëw ci ñun depuis bañ commencé ba léegi nii conseil départemental muy loo xamante ni ñu ngi koy ñaawlu bu baax a baax ndax buñ nekkee ay jeunes dëkk ci dëkk bi di œuvrer pour le développement de la culture donc war nañu teg loxo bu baax a baax a baax mais ñu ngi ciy wax nag aussi tamitam autorités yi nga xamante moom mooy autorités étatiques yi fi nekk euh, que ce soit les ministres les directeurs pour que ñu jàppale ñu parce ji projet am bu mujj mu dippeeku quand on refuse on dit euh, non liggéey na ci diirug juróomi euh, at bi nag mooy juróom-ñaareeli euh, albumu artiste rappeur bile waaye nag nee na bu weesu musique projet bi dafa ëmb itam cinéma ak photo mu war ko présente kon ni ki tey ci ngoon fii ci Ndakaaru mbokk yi fi la ñu yem ci seen chronique culture di leen jaajëfal bu baax a baax ci déglu bi dig daje ëllëg incha allah ci yeneen i xibaar aada ci RFM. CCPS comptoir commercial de plomberie du Sénégal Ecobank Malaysia UMO Soumari.com Savon de Marseille Alfi Home Choice Sénégal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 njiitu sañ-sañ yu mu mën a def ab décret buy fixé ak a wàññi prix bi journal bi dañu fàttali ne li président Macky Sall yéene woon ci wàññi njëgu luyaas bi moo di kuy fay lu matul ñu wàññi la kuy fay 300000 jëm kaw ñu wàññi la ci la ngay fay weer wu nekk décret ak texte yi réglementé njëgu luyaas bi lobsu nee nañu bind nañu ko ba teg toog di déglu conseil constitutionnel njëgu luyaas gi ñu ne woon dañu koy wàññi njëgu dund gi ñu ne woon dañu koy Sénégal doxale moo waral direct news xëy di laaj ndax gouvernement d'attaque la ñu am ci réew mi am gouvernement boo xam ne lu mu yëkkati bañ na noonu la rek mu tegaat ko ci suuf wàññi gi ñuy wax ci njëgu dund bi journal bi nee nañu askan wi santiruñu ko njëgu luyaas bi ñu ne dañu koy wàññi ba léegi kenn xamul kañ lay doon matuwaay ñu fi jëloon nit bëggoon caa jaare ngir wàññi accident yi ci kaw tali bi ba ñu jëlee mesures yooyu premier ministre dafa taxaw gi ne état bi du ca dellu gannaaw fa ñu mujjee mooy teggi seen tànk journal l'info les échos vox populi ak tribune fa ñu xëy teg seen baaraam moo di li ñu ne Sénégal teggiwul tànkam ci wàllu ger ak mbuxum di corruption l'info nañu indice de perception bi natt wàllu corruption ci àdduna bi wax na ne suñum réew di Sénégal deful benn jéego demul dikkul note ba mu am moo di 40 sur 100 Vox Populi di ñoo xamal ne waa Transparency International ñoo def rapport boobe mi ngi ñuy waxit ne wax nañu ne Sénégal fa gën a doy waar ci wàllu guerre fa la toll Tribune tënk wax ji ci ne guerre gi mi ngi sëxin ci réew mi école yi réew mi ak jafe-jafe yi muy dund Sud Quotidien xëy na di ci waxtaane benn mu di élèves yeeg ni ñuy bare ci biir classe yi la gis ne looleet beneen problème la boo xam ne bu ñu ko réglewul am njàng mu baax dina jafe ci réew mi secrétaire général bu bu sell sa di Amidou Diédhiou ak Cheikh Mbow directeur exécutif bu COSYDEP ñoo ngi koy dëggal ci xët mu njëkk yéenekaay bi Mouhamadou Moustapha Diagne bu ministère éducation nationale moom di fa leeral moom jéego yi ngirug Sénégal di def ngir wàññi xewit wi xew-xew am na ministre Mame Mbaye Niang ak Ousmane suba la taxaw tribunal bés bi le jour duñu fàttali ne Mame Mbaye moo plaintoon Ousmane Sonko ndax nee na Sonko da ko waxul lu amul yéenekaay bi di laaj du mën a doon candidat 2024 le bu taq suuf lay doon leader yu yeewi askan wi seen conférence de presse bi ñu woote woon te far ko fomm suur soi mi ngi ñuy wax li ko waral nee nañu leader yaa matuloon moo tax ñu annulé ko ndax Alaaji Malick Gakou ci waajalab tournéem ca la nekk Khalifa Sall nekkul ci réew mi Ousmane Sonko ma nga ca Ziguinchor ma romb Ziguinchor dem ca Tambacounda ak journal Tribune mi bind ci xëtamu njëkk ne budget bu conseil départemental bu Tambacounda mi bu bu Tambacounda ginnaaw taxawaay bu rëy bi mu wane woon ca Tamba ba fi njiit réew mi demee ca conseil des ministres décentralisé ga keroog gaa yi wotal nañ ko budget à l'unanimité le mandat nañu moom kay amul woon benn jafe-jafe woot budget ga dafa meloon nepp leetar bu ñuy jàllale post ñi jara poste ak jaajëf ñooy équipe nationale football bu Sénégal ba ca Algérie di football ca CHAN ba soleil national ñoom la xëyee ba ñu wax ne xale yi Pape Thiaw yi dem nañu final Madagascar la ñu dóor démb ci demi-finale benn bal ci dara jàll ca final ba war cee daje nag ak Algérie mi dalal xew wi record yéene kay nañu final boobee samedi ji di ñëw ci lay doon yoon ci la lions yi Sénégal yi war a jàmmaarloo ak Fenech yu Algérie yi yi ne kay bind ne Sénégal dafay finalu ca CHAN contre Algérie. CCPS comptoir commercial de plomberie du Sénégal Ecobank Malaysia UMO Soumari.com savon de Marseille Alfi Home Choice Sénégal ak marque bi di Total Tools ñoo leen may li ci yéenekaay yi. ñu àndoon ceeg Mamadou Mouhamed Ndiaye di ko gërëm ak yéen di doon teewlu xibaar yeeg RFM marché Ocass ba ca tubaa Mbacké xalifa euh, général kullu Baye Fall xamal ñi nga xamante ni ñooy euh, lale ca euh, wet ya ca dëppawul ak ni marché ba war a di fatt yoon ya jëm ca marché ba ak yeneen ñu daal di yëkkati seeni i bagage gën caa yeex ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru février 2023 mu ngi ko xamle moom kilifa gi ginnaaw ndigal tukkee ci ku tedd gi Serigne Mountakha Bassirou Mbacké ginnaaw it dogal boobee lakk gu fa amoon gu métti xamante ni daal daanaka seetluwees na ni dafa bari lu luñ ca sancee ci anam yi warul euh, waral jafe-jafe yi woon ngir sax ci sapeur yi joteeg bërëb yi ak yeneen présidentielle 2024 ak xibaar tukkee ci ministère intérieur jëm ci wàllu yeesalaat yi ñeel liste électorale di kàggu bi nga xamante ni moo def euh, aji wote yi daanu ko daal di amal ci euh, fan yu gàtt ginnaaw décret bu ñuy xaat njiitu réew mi di dogal loole war a ñu wuutu li waroon démarrer premier février bi ne révision ordinaire wàllu xibaar bokk na ci sunu gaynde yi jàmbaare lool démb ca CHAN ba ca Algérie euh, dal di jàll final seen digg ak Algérie mi dalal xew bi lay doon incha allah samedi ji di ñëw Abdoulaye Diop moo nekkoon ci technique bi El Hadj Assane ci micro bi digital gi soxna Yacine ñu ngi leen di gërëm mbokk yi di leen jox ndaje ci kanam tuuti ci penco gi ak rajo Futur Média